magistrature bi la jënd fin du mois bi magistrat donné recevoir 1,5 million cinq cent yu octroyé l'État du Sénégal a octroyé aux magistrats des fonds communs à hauteur de 1,5 million cinq francs payables par trimestre ku ci nekk demande na la numéro de compte pour un virement qui sera fait à partir de, de, de, euh, de ce fin de mois du mois de mars loolu lépp xeetu corruption là. tous ces avantages c'est pour les corrompre parce que ci biir magistrature amna na ay patriotes waxuma nag bu len deug patriote rek diko yobbu ci parti politique ba de nee naa <laughs> parti politique bobu nonu, bëri na fa nek duñu patriote dé. bëri na fa yëngu duñu patriote dé. man moo patriote bu sénégalais yàq daf maa metti nag daf ma metti parce que golo gu jóg ñu leen la patriote mbaam xuux bu jóg ñu leen patriote dof bu jóg ñu leen la patriote nañu yàqee patriote moom moo moo moo torox Sénégal ñoo toroxal xeetu tur boobu patriote un patriote moo jiitu parti politique un patriote existe avant des partis politiques Sénégalais, vous ne pouvez pas être un patriote. Dites ses intérêts. Nation. Donc, si vous magistrat, vous avez patriote. Un combattant pour la nation sénégalaise. Nous avons que nous corruption. Nous avons 1 500 000 net. Nous avons dit que nous compte bancaire pour faire leen ay virement fin du mois bi un million cinq cent pour lan la corruption waxoon naa leen ne Maham Diallo a encaissé 200 millions et une une maison aux Almadi Maham Diallo pour son ordonnance de renvoi Boumoudef ordonnance de renvoi bi Maham Diallo def ci affaire l'affaire Ousmane Sonko adissar Sarr jot na ci millions deux millions 200 millions de francs CFA rond le Maham le recevoir encaissé ko pour une maison qui est aux Almadies maison bi benen tour la ci def depuis vous avez fait cette ordonnance de renvoi et Maki les a promis une promotion comme nous le Diallo, il a promis une promotion et un grand poste de responsabilité. Mom ak ñom Pape Mohamed Diop et ses assaillants, ñi nga xamni juger Ousmane Sonko. Les magistrats qui doivent euh, euh, juger l'affaire Ousmane Sonko Nous Mbaye Niang ñom ñep jox na len promotion et un postes de responsabilité. Ñi nga juger Ousmane Sonko et ils sont prêts à le condamner procès spécial du un procès public question réponse question réponse vite fait nous, tëj affaire ya le 30 mai, condamné ko génn jéem contrôler foule bi parce que nous, les sénégalais yi bu tout tout, nous bu ñu rek après mu c'est que jëw boobu moo ñaaw regret xiif Joy, boo vous nalaw bi ñuy jëwee ñun dañ ci war a dañ ko war a bañ ay xale lañ ñu def nee nañ sénégalais liir la bu jooyee dañ koy tàpp-tàppal raay fóon mu nalaw danga koy coqataan ci poqataan mu kontaan di reetaan boo seetaanee rek mu nalaw rek ree xiif jooy buñ tëddee nalaw loolu la ñuy jëwee il faut ñu woon leen ni nag ah même bu dee ñun moo mu moomuñu jikko boobu àbb nañ jikko yi malien bi dem nañ jëli maliens yi àbb nañ leen seen jikko wala dem nañ àbb ji yi seen jikko wala dem nañ àbb ji tunisiens yi seen jikko et cetera et cetera wala burkinabé yi seen jikko parce que lan ñuy jëwee rafetut nee na sénégalais euh, goût inachevé du du du def dara eggali ko te akay dëgg nag senegale moomu mun a léegi yuuxu for xeer sànni ñu ne ko Barça Real mu sànni xeer ba du dugg toog di seetaan

xex bi encore une fois il faut ñu bañ jël ay nit jël leen tek leen ci kaw di leen sacrifier xex bi peuple bee wara jëlal bopam mais xex bu amé ay non nañ xaar ki nañ xaar leader bi noonu leader bi wax sa waay xeex bi du xexu leader politique xex bi xexu nation bi la xexu injustice la xex pour la démocratie l'instauration d'une démocratie xex pour l'instauration d'une justice équitable xeex pour rétablir les lois et les règlements xeex ay inégalité sociale la xeex politique xeex pour xeex injustice